fon nañu leen bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bi di réew mi TV li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañu koy doo rek reewaange gi nga xamante ne rek ñu ngi koy nemmeeku nag ci yoon yi mu nekk ab vidéo boo xamante ne rek dinañ koy partagé ci réseaux sociaux yi waaye nag mu nekk mauvaise nouvelle ci bi nga xamante ne rek ñoom ñoo doon def loolu ci ab vidéo daal dinañ ciy gis nag ñeenti apprenti ak benn chauffeur ñuy daal di dox rek ak tànk ci kaw oto bi nekk ab njaganjaay boo xamante ne rek ñu ci bëri ci internet yi dañoo jàpp ne rek yëfu reewaange dëgg la ginnaaw bu ñu gisee ndaw yooyu nag di fooye nu di def ab vidéo viral nag di ko bu mag bi nga xamante ne daal dina koy am rek jamono ji nag police daal dina ciy lancé ab enquête jamono ji ci ordre autorité yi ab enquête daal dinañ koy section des accidents bu bu Ndakaaru bi nga xamante ne rek jot na identifier ñaar ci ñoom ñoo nga xamante ne ñoom ñoo laale ci boobu lee mbir li nga xamante ne rek rek ñoom ñoo nekk nag chauffeur bi ak apprenti bi jamono ji rek ñu ngi leen mettre garde à ci locaux bu police bu Ndakaaru waaye dina leen fas yéene jébbal procureur de la république bu tribunal de grande instance hors classe bu Ndakaaru ginnaaw bu enquête bi jeexee yeneen ne nag jamono ji ñu ngi leen seet bu baax ngir mën leen a jóbbal ñii di enquêteurs yi du ñàkk rek dinañ ci xuusandiwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee